alhamdulillah asalaamaaleykum maam astu jànka yaa gore maam këmuñu woon ba jooy ware looloo waral tey ñoppuree maam astu géeju mbambulaan ndoxam mi neex naay walangaan jigéen ñi roy leen tey dagaan ci moom boroot seeni bagaan maam astu jànq mooy kënu balam ya moo dem kënu toj xoli man xat sëkkënu ba kënu soxna say kenu maam astu jànqay geluwaar matal na mbuulee mi dawaar mbiram mi tolla raw na waar kii moo ñu him kii moo ñu waar matal na xaqi boromam set na ci xaqi moromam mbatal na xàq sëriñam sangam ba mooy borom këram looloo waral mu ci moom maam assumi lay gan doom dawaa ji donnu mbóol ma moom fay ba ngir moo gën ca moom maam assumi ay gànjaraam la jaay jëndee ko am njaram jaayante na ak borom këram matal ko làqee ngaramam moo liggéeyal borom këram jërëgën jëf jërëgën jëf moo mbokki téléspectateur. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu waa Kossy TV comme lañ dee seetaan seen programme tey mu nekk waaw ñun ñu ngi béy ko ba Gàmbi yow siyaare ji siyaare si siyaare si daa si jànq bi comme ànd ak lenn si ñun ak suñu sëriñ ki nga xam ne mooy Mbaye Zakir ak lay soxna ñoom Landing Ndaw fekk fi tam nga xam ne nii moo amee wàllu xabru bi ak suñ beneen mbokki taalibe ngir teewee bés bii nii ñu ngi kontaan bu baax di ñaan yàlla ñu yàgg fekkee yéen waa Kossy TV fépp fu ngeen bëgg ak rek ak lim fa te yokku seen kàttan ak seen si liggéey bi tam asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, alhamdulilah ñu ngi nuyu mbokk yi jullit ñi di nuyu mbokki taalibe yëpp di ziyaara Cheikh Mouhamadul Mahi al Khalifa di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu waa Kossy TV di leen ziyaara bu baax si bés bu màgg bi nga xam ne Cheikh Aïssatou bintu Cheikh Ibrahim mu ngi koy defal turandooram bi nga xam ne mooy waay juru Mawlana Cheikh Ibrahima di maam Astou Diankha radiallahu anha nga xam ne comme ni ko suñ mbokk mu baax mi waxee di Cheikh Abdourahmane xam ne ñu ngi jógee ko ba gambi nekk daara maam Astou Diankha foofu jokk si sëriñ bii di Cheikh Aïssatou di liggéeyal maam Asta Diankha foofu ci buntu Cheikh Aïchatou tey ñu ñëwoon ndokkeel la si ko si bésam bu màgg bi bésam bu foor bi bésam bu kawe bi nga xam ne àdduna bi yëpp ñoo waroon a bu ñëw fii tey e, ndokkeel la si ko ndax wax dëgg yàlla maam Asta Diankha mooy ki nga xam ne moo ñu indil kii àdduna mooy Mawlana Cheikh Ibrahima nga xam ne moo ñu goreel Mawlana Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo tax ñëpp xam yàlla dëgg dëgg ko yaayam ñëpp war nañoo fuglu bésam bi ñëpp war nañ koy ñëw ndokkeel si si barkeb Cheikh Aïchatou ñu ngi ñaan lépp lu fi waay ñaan yan na ko nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barab bi nga xam ne léegi Cheikh Aïchatou mu ngi wax ne néeg boobu la bàyyi daan génnee di dem si rawdu maalaaji bi ne diggante néeg bi ak rawdu bi lépp lu fa nit ñaan mu nangu kon bisi tey bi ñu ngi am yaqin ne bisam nangu ñaan la lépp soxla bu waaye am yenn ko ko yàlla fajal ñi bëggoon a ma ñu ñu wiir yàlla fajal leen Eh, ñu ngi ñaan ma asu jank yalla yalla yok leeram te tass ñu ci barkem eh, ñun suñu seen la mbay musa ay sutu gambi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa barab bi day barab yaay bay la sayda asu janka so waxe lol sa doyna wa pour mom moo indi mom bañes amu ben kaddu gannaaw bay wa lol rek la mëna wax alhamdulilah rabbil alamin man la dama tudd Jamil Niass maa ngi kar Cheikh Mounafi Nigeria laa jógee dëkk bu tuddee Kasna foofu laa dëkk presque am waaw maa ngi nekk fii at ak juróom-ñaar maam Asta Diankha yaa fi xam joo xam ne xam ko doy na ndam sangi araba ki ajam ya sori sanni ya jam maam astu jànq mooy kënu balam ya moo kënu toj xol yi man xat kënu ba kënu sax na say kënu maam asta jànqay gelwaar matal na mboole mi dawaar mbiram mi tolla raw na waar kii moo ñu kii moo ñu matal na xaqi boromam set na si xaqi moromam matal na xaqi sëriñam sangam ba mooy borom këram looloo waral mu noon sa moom maam asta mii de gën sa doom da waaja donnu mbóot ma moom fay doom ngir moo gën sa moom maam asta mii ay gànjaram la jaay jëndee ko ak njaram jaayante naag borom këram matal ko laqee ngërëmam maam asta mooy nawet bu bees lollim bohom na sàq fees nooraan bi xiif lekkal mu rees démbulu oon am na lu wees maam astu jànq mooy ngalam xayma ja foor na ay lamam duñ ko xaymaa ki përëm te duñ ko jaayee ay dërëm mam asta jànq mooy kënu balam yemoo dem ba kënu toj xol yi man xas kënu bëkkanu sax na saykanu mam astu jànqam yaa fi doom joo xam ne am ko doy na ndam sangi araba ki ajam yaa sori sànni yaa mën a jam ba baay juddoo la suñu maam habdal ilaahi ñas ne maam asta yaakaar nga muy imaam man dogu naa ta man tara sëriñ si buñ teewee fa baay ñii mel ni nonga ñaari doom sirif soy barkeloo ca moom dëkkit ma ngir xam cër yoo xëttam ma fët moom la bay wax liir la booba sii la laay rijaalu kaybu bu yaak seeni gaa yi nangul ko bàyyi daay jamaano bi ak saahiram yombal na mboolee mi mbiram borom jamaano doo gërëm dikkam yombal baatinam sa doom ji mooy xutbu samaan barul buhuuri kenn du naan la mooy sa géejam fooy fanaan lu dul ci suufu asamaan maam astu siggil ba laali asamaan سدوم جي موي قطب سمان ولم يقف جور سمان موي رب الامن والامان مستقلوت مستقر ورنت مستدون بيرم جاب سوني مام دي عبد الله لوم ديغل مو دال دي ديف دان سيتيت لكوي بيغل te it moytu aw meram ngir bëgg a xam lu baax ci moom maam asta raw na leen rawoon na leen si ay waxam rawoon na leen si ay meloom sell sellal te jub jubal loolu moo ko may baraama ñas xam ngeen ne baay fu mu mën a jaar sa yaay ju jub fa lay ñëwee looloo waral mu jaar sama maam asta jànqa bettu ñu sutura buy malaanti ñun sangoo na ko si moom la xem maam asta jànqa yaayi bay mooy jigéen ju raw si haddina maam asta jànqa yaayi baayi mooy jigéen ju raw si haddina yaa ñu indil kii haddina xam ngeen ne baay mooy haddina baay jëmmam jëmmoo de haddina boppam ba moo de gémmeñ ga moo de Sénégal làmmeñoo moo de Gambia xaq qadri yi mi qadarin azim jërëjëf mbokku téléspectateurs yi defe naa kër goo gis am na buntu bu fekkente ne béseb maam asu jànq si lañ nekk tey ñu jaareetee si bunt bi dëgg-dëgg wàccoon yoon bi te defe naa sunu yaay waaye dafa naa tey xol na guy te defe naa kontaan na waaye incha allahu rabbi nii lañ fas yéene la taayee bi nga xamante ne moo nekk journée Maasu Jànqa ñaan yàlla commencé ko si bisimillahi rahmaani rahim fas yéene ko eggale si alhamdulilahi rabbi alamin du ndokkeel zakiri yi waaye di jaare waa Gàmbi yëpp nga xam naa dëgg-dëgg ku gis seen doom seen taalibe seen xarit tey su taxawee fii tey si euh, barabu maam Asu Jànq dëgg-dëgg da xam ne tey yéene na xolu taalibe yëpp ñu teew fii nii waaye defe naa si biir ñaanam dégg ngeen ko mu ne ñu war a ñëw te ñëwuñ sax leen taw tawféex defal len jàmm bu baax kon ci kamtu inshallah rabbi ñu jëmi egg ci kër ga lepp lu fa am rek ñu and ko ak seen télévision ci TV jërë ngeen jëf. ba am tiranga am ngërëm ta jaamu bur bi boromam ba tax na du gis moromam jox na ko lepp halalam ngir dom ju baax xam barka xam waye jëm barka xam la am bale merar je xiyatam maam astu jànka mooy ngaram xayma ja foor na ay lamam duñ ko xaymaa ki përëm te duñ ko jaay ay dërëm maam astu jànqa fam sosoo am nen ca ñoom bu ca sosoo mooy junne cuuj ba ca sosoo te duñ ko xayma ak lem sa sot njaaraama soxna as sa yow sa doomi doom ji foo taxaw ci dun bi fekk leen ñi raw yaa barke njànqa maa la naw mamas tujang kaya baay yes ki baay ya sene baay mo for garat ko medai ngir masta dem ba wax lu hay mam astu moy nawet bu lol lolli mboxoom na sak fees noran bi kif lekkel mu rees dembuloon xam na lu wes mam astu moy yaay karaw ka ca gayane karaw ka boole ñaari buum ya raw mu mel ni soowa kam karaw sariyaatoog haqiiqatu ak elmo ak maarifatu ak rustu ak wilaayatu ci jenni yaay ji mooy setu maam astu jànqa taari xam xellente hoon ma gis xam ba nettalil leen ay waxam ci ay xibaari sax man dégg naa na ak ndawam njànqa da daan muuru sëlëm ba mag ñi naan kile mbiram ak nim ndawee daf ñu xëlëm te daawut foni ay gune da daan sikkar fu mën a ne ngir xut bu fu mu fokk mu doon fu mën a ne kenn mës sa gis maam Assa wax ci kaw ci ay sikkar la sax te mos sa reeba rek ko sax te mos sa yandoor ngir na sax sangi jigéen yiñ fi xamoon ci dun bi yaa xaw fiñ xawoon mel nañ meloon def lañ defoon ngir jant fenkaan moo soxoon rijaal ya juróom la woon yónnantoo saabaam ya woon ñeenti ñu baax ñoon toon xam na ñu naan juróom la woon xomar juróom bennal na leen ibnu abdul asis ka royoon ci mbaata fonk leen te tànn seen yoon topp leen juróomi soxna yi itam ñoo gën ci fii ak fa ñu jëm maam asta roy na leen ba xam ku ñëpp nawloo moom itam xadija toog fatimatu xaayisa toog asiyatu maryaama ñiiha jël atu maam asta mooy saadisatu juróom bennal na leen ba tey ba tax na boo xëyee wëy jigéen ñi baax ñu honte wéy wayoo ko woowa way du way maam astu dongoy sëriñam bu baax ba xam na bagaanu soow yaa karawam yaa say naa ñi ngi lay ñaanal allahu allah mu mu dëgër gi yaram amiin ci barke baay yaa say

fan bu guddal wér gi yaram amiin ci barke Baay Seyda Ñaas ñu ngi lay ñaanal allahu allah fan bu guddal wér gi yaram amiin ci barke Baay Seyda Ñaas allah fan bu guddal wér gi yaram amiin ci barke Baay Seyda Ñaas ñu ngi lay ñaanal allahu allah fan bu guddal wér gi yaram amiin ci barke Baay Seyda Ñaas ñu ngi lay ñaanal allahu allah fan bu guddal wér gi yaram amiin ci barke baay sayda ñaas ñi ngi lay ñaanal allahu allah fan wu gudd a wér gi yaram amiin ci barke baay sayda ñaas ñi ngi lay ñaanal allahu allah fan wu gudd a wér gi yaram amiin ci barke baay yaa sayda ñi ngi lay ñaanal allahu allah fan wu gudd a wér gi yaram amiin ci barke baay yaa sayda ñi ngi lay ñaanal allahu allah fan wu gudd a wér gi yaram njaboot ga xam nañ aw ñamam mooy yaayu mboolem ndongo ya toggoona fon ma togg ya toggoona wal ya soq ya toggoona ron maag coono ya te mastafaatal waxtu wa ak wir da waaw wa sifa wa te fonk lool wa lii wa mama sëjël na raaya wa jigéen ñi xam ngeen royuwaay maam as su jànqaay royuwaay ci yoonam ngeen la waay bu leen ko séentu raw sa doom ci géej la duñ ko ŋas siggil na gaaya sant ñes te toolu diina moo ko ñes banoo ni diina xëy na mes sa doom ji njànq moo musal roo yu ci mbugal setal na seen tilim saxal na leen ci ñuy jëfee ndigal maam astu jànq yaa fi xam koo xam ne xam ko doy na ndam sangab araabi ak ajam yaa suri san yaa mën a jam sëriñ si buñ teewee baay ñaamel ni ndongo ñaani doom sëriñ say barkelu ca moom ma ngir xam cëri yoom ba baay juddoo la sunu maam abdul ñas ne maam asta yaakaar nga muy imaam man dogu naa ta man taraam fati moom la baay wax liir la booba ci lala rijaalu xaybu yaa seeni gaay nangol ka baay moo formé jamaano bi ab yombal na mbooleem mbiram waa borom jamaanu duuguram dikkam yombal baatinamam sa doom ji mooy bëwrul buuri kenn du ci géejam fay fanaan lu dul ci suufu asamaan sigil balaalil asamaan sa doom ji mooy jawra zamaan mooy rabbu am nen wa amaana sa doom ji rek moom lañ fi xam mooy nit ku ñuul ku naari gëm di ko dagaan di dem këram di tër bi yoo ko xam ngërëm liñ gis ci bay ci xeeti xam xam ak wilaaya mosta xam gëstul ba xam ku mel ni bay ñes yaaram yi kuñ jiital fa xam sa doom ji fu mu gane mooy jiite mbooleem ña fa ne baa doolu buur nit ak jinne góor ak jigéen mag ak gune wurus la yaa doon sëdëfam jagal la yaa di masriqam yow kenn njànq lañ fi xam ku meññi mboon mu kenn dut xam sa mboon mi mooy tiitër ci xaam loolu moo waral xaam mel ni Mustafa mooy seen imaam yaa fis ba gooy naay doon sa maam yaaram la xaas la garme la bu tull tull kenn la ku yàlla buur bi tànn la defal tiraanga taxawlu leen taxawlu naam di ñaan ci yàlla rabbanaam mu tàggatal ñu haddina xallak mu may ñu haljanaam ci barke bay ci barke maam abdul ilaahi barke maam haa isatu jànqa wassalaam ala nabi xayril anaam jigéen ñi xam ngeen royuwaay maam Assa Diankay royo waaye bés bi taalibe Baay Ñas yi yàkkamti woon del siwaat na ziyaara maam Astu Diankay yaayu Baay Ñas samedi 13 janvier 2024 ca Léona Niassène kër Baay Ñas ren mooy fukkeel bi yoon ak juróom-ñeent bés bu mag bi ni mel nag Sénégal ba bitim réew fu nekk la taalibe bàyyi di baxee ko rëj-rëjloo mbooloo mu bari foo ko natt weesu na ko kilifa yu mag ci xadara bi di ko fekke ziyaara maam Astu Diankay yaayu Baay Ñas benn taalibe taalibe Baay amul ngànt ndax moo tax ñu jot ci Baay Ñas tey kan mooy organiser bés bi ni mel nag looloo jaralaaj a laaj as-sayyida Aïchatu bintu Cheikh Ibrahima Ñas ñi gën koo xam ci Seyda Ndey Ayda doomu Baay Ñas la fa ko mate sëkk Seyda Ndey Ayda ku baax fa laa biir fa sell fa dal fa teey foo ko gis alquran ma nga ca loxo ba borom maqaama la royuwaay la waaye kuñ ne Baay Ñas mooy sa waajur bu góor nii rek nga mën a mel bës bi ni mel nag mi ngi am ci ndigalu alxalifa Cheikh Mouhamadul Ibrahima Niass xaadimul umma ak imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé Seyda Aïchatou bint Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne mooy présidente fondation internationale mam Astou Diankha ak mboolem fédération ba ñoo leen di yëgal seen conférence bu mag bu ñu amal at bu yàlla sàkk jagleel ko Maam Astou Diankha ren nag ña ngi ko parrainé Cheikh Baye Oumou Niass Medina Baye ku xam njëriñ Cheikh Maam Baye Seck ku baax Medina Baye Pape Samba Sarr Paris France ku tey daayira Nasrul Elmi Atlanta Amérique seen président ba imaam Baye Seck ñooñu bàyyi rek lañ bëgg bàyyi ñas groupe whatsapp statut rajo amérique seen président Makumba Caam ña ngi ko marraine ak sayida mariama sumaare indianapolis amérique ak sayida Seynabu Caam bi tey atlanta amérique ak sayida ayda Caam Rufisque dakar association maam assu jànqa dakar présidente ba sayda roqee Caam daayira maam assu jànqa jumaa ji Medina Baye seen présidente Adja Yaama Gueye fañ cay fàttali ñu génn àdduna ba pare ñu rendre leen ca hommage bokk na ca Ibrahima Niass ay loolu rafet na El Hadji Abdoulaye Mahmoud Niass El Hadji Makumba Thiam nekkoon Amérique El Hadji Baye Tall Abdoulaye Hadj Mishri Cheikh Ibrahim Alpha Hafidul Quran Asayida Mam Mati bintu Cheikh Ibrahima Niass Asayida Mam Binta Ali bintu Cheikh Ibrahima Niass Asayida Hafsatu Ousmane Bachir invité d'honneur ba Cheikh Abdou Jalil Mansour Haydara muqaddamu Baye Niass ca Mali programme ba huit heures fa ñuy jàng alquran quatorze heures ñu xéewlu ci bernde yu safta neex seize heures ñu amal conférence France ka koy taxawee Cheikh Baye Bachirou Cissé kooku aalim la ba pare nag fa fasaaxa thème ba muy waxtaanee wareefu waajur ci doomam modérateur ba Cheikh Mouhamadoul Mounhamina Cheikh Ibrahima Niass président Ansaruddin national directeur institut islamique Alaaji Abdoulaye Niass lu mu modéré fay normal dana fa jël kaddu Cheikh Abdoul Malik Cheikh Ibrahima Niass nit ku baax ba pare am xam-xam mooy coordinateur prix international Cheikh Ibrahima Niass ci concours njàngum alquran Cheikh Moustapha Cissé di doom ci Seyda Ndeye Aïda moom it dana fa jël kaddu ndaw lu am xam la fa jàng samedi 13 janvier 2024 ñu ngi ci woo mboolem kuy jullit ziyaara maam astu jànqa leew na ña seen kenn du fa xaj ndax bés bi fa rëy ci diine ji bés bi fa màgg ca dina Baye bés bi taalibe yi fañ koo fonk lool a sayida nday ay dañes gàcce ngaalaama sa taxawaay rafet na xat bu yàlla sàkk rek bés bi di gën a yokk di gën a taaru lépp ndax sa itte taalibe yi fañ lay tiitaroo xadara bu dina bàyyi di la sagoo kilifa yi di la ñaanal ndax dëgg-dëgg sang nga ñëpp la amal njukkal ay yadakillaahu wa yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak Baay yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla jox leen